bismillah fii niin ak daara yàllaaw safi baqa abin bi fiq yàllaaw bismillah fii niin ak daara yàllaaw safi baqa abin bi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 نفسي أجوا برامتي ألا ألاقي درا منك يا الله أزاري ملاسي أجوا برامتي ألا ألاقي درا منك يا الله مليك يميني وقلبي بزول يا مليك بلا إسان بن بيجو دل منك يا الله خدست سري يا قدوس متليا أني وأن كرادي تدار يا الله أنت سلام لاسي سلمت كل من ويا بنفسي بيتي منك يا علام أنت سلام لاسي سلام تكن لي من ويا بنفسي بيتي منك يا الله يا مؤمن في جنة بدر ما كدار وابلي الأمن في الدنيا التعريض يا الله وبالمؤمن لسعب استرايك ما خبيت سرا إلى الجماعة يا الله أنت العزيز الأسي أقيم بإيستي إذا يقلد waaw mu mel ni bis bi nga xamante nii moom la sëñ Moustapha Amar di woote Thiès euh, muy tey jii mu koy defee fii ci ngent sama borom dogal na nag alxuraan ci kaamil bi wàcce nañ ko ba noppi mu mel ni ñi ngi toll ci war a jàng xatmu bi loolu nag mu mel ni ren jii la juróomeeli at sëñ bi di ko def fii ci cees ci quartier Ngent suñu borom dogal na nag kaamil bi ginnaaw noppi na ñu war a jàng xatmu bi ñu di leen xamal ni sëñ Moustapha waaye Thiès gépp a ngi koy sant ci liggéey bu rëy bii nga xamante ni yàlla dogal na mu di ko def at mu jot ndax loolu askanu Darmanko yi la koy defal muy journée culturelle Darmanko loolu nag di lu kon su ko defee mi ngi toog ak nijaayam ji nga xamante ni mooy sëñ Aliou Amar di nijaayu suñu musaba Amar ñom ñuy suñuy sëriñ di suñu lepp bis bi tax mu jugee ci dëkk ba ñëw fi ngir yalla ak jëmmi xaadimal Moustapha tok nga xamanteni ni yor daara ji yi sëñ salu Touré mu sëñ alen Badara Cissé mom nak li ëpp ci njabootu sëñ salu Touré gep mo len mo len yor jangaleen leen andak rakam ji nga xamanteni ni sëñ Mo Cissé sëñ Moussa Cissé momi di kenn ci dëkk bi di kenn ci talibé yi mu ñoom ñuy sëttu sëñ Jarga Cissé sëñ Jarga Cissé kenn ku na xam na mo moom sëñ Touba kon dal ñoñu ñooñu nga xamanteni ni ñu leen ñak baña wax. dolé ñaan rek ñaanal way juri ndax yonent bi sallallahu alaihi wasallam sallam fay wax ne boy ñaan na ko def ngir yalla jaamoo ko yàlla daf ko addiya yonent bi sallallahu alaihi wasallam sallam teg sa ñaari way jur nee na loo ci teg mu nangu kon ci alquran rek la ñuy dox ak sunna ndax loolu la fi yonent bi bàyyi suñ tuwaay mi ñu yaakaar it moom la ñu ci lañ ci lañ bëgg a sax rek bu baax a baax nag tey ñaan yàlla it nit ku ne it day am foo xamante ni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 الذين يؤمنون بالخيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون جعل الله من المفلحين بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لكتاب عزيز له مغفرة ورزق كريم ودخل الجنة فقد فاز ولله الآخرة والأولى وجهت وجهي بتلاوة الكتاب لمالكي وأرتجي خير الصواب الحمد لله الذي خلمنا بخير فكر قرير مشانا نشكر ربنا الذي تقبل منا تلاوة كتاب أنزل نشكره على توجيه درر إلى سوانا وكفينا من قدر هدى والنور وردا وبركة في سكر من بارتفاع مدركة للمصطفى سكر حكيم يخني عن المدافع بسن المعني كوننا عبد الله سيد الوراء بان لكل من اهداه النذرا توصلي بالمصطفى المفضل لي خاد تقديما من المفضل إن رسول الله فاق البشر والجن والأملاك هذا الفخر بركة الكتاب أبدت كوني خديم من جعل النور الكوني أني نفى القرآن قبل كل ما لم يرده ليس الأراضي والسماء زنت مكاتب السوات عددي لله ورسولي وقت نكدي يقود للباقي دواما معود إلى الجنان دون ضر أو كبد زادني الباقي مسرة تدوم في سورة الأنفال أبذ الكريم لله ما كتبته من جيسسي ولرسوله لقتم جكسسي هدية مني لربي سكور ولنبي قديما ساسكر مني لله ولرسوله ولسوي الإسلام والقبول من دكسس إلى دخول الجنة خطي بلا أذن وخير فتنة حنيت بالجساء والأجور وبالصواب كما سأدوري في التنيمان وبين رابه ينو إليه فائز أو صالح ربيات تجارة المتجار لمن ينقاد الجزاء ووجاء هدى والنور وردا ويسر ونلتها ممن عداو البر تاب علي من لديه قصلت عني عيوبي كالعذاب فانقتلت وجعني من ربي الكريم النافع الرحمن الرحيم ردا وبسر وأمان وصفاء بلا نهاية بأجر عرفا زادني الباقي سعة الرحيم أشكره على كتاب الكريم خادني القرآن خودا لم يكن لخيري الدهر وخاد لي يكن كون لي من لم يكن بعاجزي ما جاد لي بواد ناجسي رد المكاره لخير الله خطعا ولا إله إلا الله يزوق ما خلقه أو يغلقه من الأذى إلى الزوايا المطلق مع الذي جاد بالكتاب عن سوى الأمان والصواب وجهت للباقي علي كليتي حقني قولي عملي ونيتي أدخلت في جيب رسولي كليا صلى عليه من أجل خليا ديني كتاب المصطفى لا خير وينتهي إلى الزوايا الدير قبحت ربي ورسوله والكتاب مستغنيا عن الحساب بالصواب لله قد وجهت ما أحناني عن الخلائق إلى الجنان دي سانتال يالا بو باخ di ñaan lépp luñ fi ci juróom-ñaari kaamil liñ fi wàcce yàlla na ko suñ borom nangu tasaare ko ci borom ci mboolem jullit yëpp li may doon li ci wax yi sëñ njaay Abdou njaay mi ni sant yàlla bu baax Moustapha Amar sama jarabaatu lenq la yaayam mooy sama taawu baay mu wëlbatiku nag féetale maag moom sama taaw man mii yaayam laa ko tuddee su may seede ci moom xam naan dina dina metti lool waaye nag nañu xam ne sëñ Moustapha mi suñ borom moo ko féetale ak Thiès ndax mënoon na naa gane àdduna ca ñaari këri baayam yi nga xam ne benn baa nga jéemul benn baa nga Touba waaye suñ borom fii la ko gane la àdduna ñu koy waaye borom Thiès. muy xéewal goo xam ne gi dañ koo andi ci dëkk bi ndax lan ma ne xéewal la moom de maamam bu mu am samp na daara muy ci côté waay juróom jigéen ci côté baayam ñoom ñëpp ku ne samp na daara li muy def nii suñ ko mënee wax ci misaal garab la gu am ay banqaas dàtt baa nga jéemul jéemul am na màggal goo xam ne gii fa koy defee at mu nekk ay baayam ñoo ko soso ànd ko suñuy bàyyi ñun nii ñu koy defee fii bis ba bis bi del si lañ fay jàng alxuraan di wàccee kaamil kon ba garab gi benn benn anqaas moo ñëw ba fii cees mu di ko def loolu laa leen di wax ne leen fu ngeen toll su ngeen ko mënee di gën a lawal dëkk bu ngeen ko mën a lawal rek dañ ko fa lawal ndax dàtt baa nga jëm waaye yéen ngeen a ko yóbbu fu mu mën a yóbbu lawal ngeen lawal ko kon nag dañ koy ñaanal yal ko yàlla jàppale yéen ñi fi ñëw nag ñu leen di sant di leen gërëm di kontan lol ci jappale ben koy jappale ndax ñun gën di jàppale ah seigne Saliou tuba mi nga xamni mo mhm. fi nekkal seigne Touba ci dëkk bi yabal leen fi ñu leen les koy sant bu baax di ñaan yalla yalla na ko fi yalla baye ci may ko ban ko wér lol la bëggoon a di ci wax ji di jéggul bu baax di ñaan yalla ñu fekkar ko ay déwén yu bari jërëjëf Cissé mi ngi ñaan sun borom yàggal fi Cheikh moom Mountakha Mbacké ak sëñ Amdi Modou Mbend Fall ak kilifa diine yëpp ak sëñ Moustapha Sarr Cheikh Basirou Sarr lépp lu am ne moom mii lépp lu mu am ak lépp man ak lépp ak baatin moo ko def ci jëmmam ji naam maam nag maam mu am maamam mu am sëñ Tuubaa ko seexal sëñ Tuubaa ko seexal Samba Diarra Mbaye Cheikh Samba Diarra Mbaye Cheikh Sadiay Mbaye Cheikh Sadiay Mbaye Cheikh Alipane Mbaye Cheikh Alipane Mbaye Cheikh Modou Mbaye Mbëgge Cheikh Modou Mbaye Mbëgge Cheikh Babacar Mbaye sëñ Tuubaa leen seexal sëñ Tuubaa leen seexal sama ki ki jur waajuram bu jigéen. kii ki jur sama baay. kii jur ki jur baayam. waaye nee na amewul foofee sëñ Tuubaa de. moom mi ngi ko amee ci jëmm ju tedd ji li mu wax. muy Cheikh Basirou Sarr jaamu sëriñ Tuubaa. nee baayam Cheikh Ibrahima Mbaye. ñu ko daan wax Cheikh Ibrahima Mbaye junne liñ ko gën a xamee ne Cheikh Basirou saar jaamu sëñ Tuubaa nee na ko. baayam junne yi ko. baayam booleeloon. bun ma sonal sama baay. ne bun ma soon a sonal baayam moom. ba yeew ko. ba yeew ko. Cheikh Bassirou Sarr jaamu Sëñ Tuubaa nee na man la sama baay di yebal maa ngi dawal sama gis ñëw yeewi. Cheikh Bassirou Sarr jaamu Sëñ nee na moom la baayam maam Serigne saar di yebal mu ñëw yeewi junne. sama baay mi ngi nelaw 1960. ne baayam mi ngi nelaw 1960. fukki soxna ak juróom-ñeent ñoo ko moom. fukki soxna ak juróom-ñeent ñoo ko muuru. mooy doon mbaa yàlla maam Serigne Sarr. moo dewoon mbaa yàlla maam Cheikh Serigne Sarr. waaye jaamu lii ma la jox moo gën la baay joxoon sa baay. waane jaamu Serigne Touba nee na ko yow sëñ Njaga lii ma la jox moo gën la sa baay joxoon sa baay. junne yem yoroon. junne yem sama baay jox ko ko. ak yeneen junne yi ma yor. ak yeneen ko boole ak yow te duñ la sonal loo leen sant ko ko boole koog jëmmam ji te duñ ko sonal te lépp lu mu leen sant dana ko def. te yow mbaa yàlla naa la ni mu doone woon mbaa yàlla. te moom ko dolli naa la ci nag mbaa yàlla goo xam ne na mu doone yalla moom. te foo ma woo loo sàkku sama barke sëñ Tuubaa def loo sàkku sama barke it sëñ def ko ni ko ku baax ki waxee léegi rek na ma nag liggéeyal ci sëriñ ne ko nag loole nag ma la sàkku liggéey ci sëñ Tuubaa moo tax ñemewut a génne liggéey bi sëñ Tuubaa euh, ne xanaa amoon ne sëriñ maam mii li mu wax sëñ Ahmed sëñ Ahmadou Soudou li mu wax képp koo gis mu génn ci télé képp koo gis mu génn ci télé ne am naay junne. ne billahi wallahi taala amul. ne billaahi wallaahi taala amul junne. ku am ku am junne. kew mi junne. xaybu la xaybu la. baatin la baatin la. sekkare la du ko weer la du ko kon nag sëñ bi. ne kon yéen ñi fi nek nak lépp lu ma am jaamu sëñ Tuubaa. lépp lu ma am jaamu sëñ Tuubaa la. ne kon sëñ bi nga ñaan. ci barkeb jaam ci barkeb jaam. alhamdulilah. alladi hadana li hada wa ma kunna li nahtadi lawla bokki juliti bokki talibé ñi ngi leen di nuyu ci turu serigne Abdoulahi Diouf mi khalifa serigne tierno Diouf lambay yabal délégation bi nga xamné ño and ci njital serigne dam belal mom serigne tierno Diouf lambay ñu fekk ci fi serigne mustapha Amar mom serigne Aliou Amar mom serigne Dongo Joor bis bo xamné da koy taxawal fi ci Thiès dara jaale ko serigne tierno Diouf lambay serigne mi nga xamné moy khalifa serigne tierno ci ndigal señ tiar fali mi khalifa señ Aliou Diouf lambay yabalon delegation bi nga xamne ño and ak Serigne Dame Belel Diouf mu ànd ak rakam yi ak domam yi ak lenn ci talibé kër gi ñu ñëwon ngir téwal fi Serigne bi xamna ñun dañuy ubbi rek waye dañuy jox kàddu gi señ Dame Belel ci ay bismillah bokki julit yi ñu ngi leen di jottali nuyo bu bayiko ci serigne Abdoulahi Diouf muy jëwriñu ko serigne Thierno Diouf lambay ak njabootug serigne Thierno Diouf lambay gep ak njabootug serigne ali Diouf lambay gep di len xamal ne mo nu fi yebal si ki ab mo di serigne Basiru ak serigne cheikhuna mi di rakkam ak serigne Sohaybu ak serigne Abdoulahi Diouf di ci njaboot ak sëriñ Cheikhouna ndjay mi di doomi soxna Mariam Diouf ak serigne Dame Diop di xamle ne gis la bu ko ñor bo xam ne bu mën na teewal bopam moy teewal bopam waye bam amé amee ngant ngirug magit motax mu yebal sun fi mu mel yow sëñ Moussa da nga xam ne bis bi serigne bi fonk nako ndax bu yebalan ab taw mu doy bu yebaloon ca doomam yee kenn mu doy bu yebaloon ci jëwriñu mu doy bu yebaloon rakkam ji kon bu nu boolee ñun ñëpp moo bëggoon a teew xam ne bis bi ñor na ko bis boo xam ne nag dafa wax ni ngeen koo bokk te muy te muy ab taaw kër googa di taaw ci kër sëñ Aliou euh, kon bu yàlla am soxna matu amarit yàlla def mu nekk ci loxoom kon bisama lu waay def ci bis bi moom nga ko defal mu ci sant yàlla bu baax nag di ko rafetlu bu baax ndax di xam ne fii nga toll ci ndaw toll ko ci xamuk àddina maanaam di yëngu ci leneen mbaa nga woote leneen bu sun borom dogalee nga xam liy jariñ te mi ngi tàmbale ci ginnaaw ba nit ki gëmee yàlla la muy def mu jiital say bokkam ginnaaw da nga am bokk yoo xam ne nag dañoo doon ay ay royteef boo fa baatee bokk googee teg tuddi ko ñoo xamante ne biit ñoo maam yooyu ñoo bokk ndaje fi Sëriñ Tuuba loolee day am njëriñ loo xam ne day wax ne ñii ay gone yëpp bu leen yàlla xiiranti di fàttalikoo noonu li yàqu ci jamono du yàqoon nii kon leneen loo woote woon nag mën naa gën a xumb sax waaye nag am na ñooñ doo leen gis waaye lii moom foo nan foo ko mën a wootee lu mu sori sori bu ànd ak dogalub yàlla dana teew mbaamu mbaamu yable kon loolu muy tënkub kàdd yi nga xamante ne bii yónni nañu ko ñu bëgg daal nga xam ne xam na ne xam na ne bisama ndax mooy taaw ci kër sëñ Ceerno tey mooy taaw ci kër sëñ kon loolu moom lu waay def ci bis bi lu ci waay wax ci lu baax moom nga ko defal moom nga ko waxal ñu ngi la ciy jaajëfal di ñaan suñu borom ba ci sa barke maam yi nga yàgg koo taxawee te. bokk ci cabinet maire di conseil spécial am waaye di doomam. Euh, monsieur le maire tànn ko tey ci sa bis bi yónni ko fi boole ñu ak moom ni nañ ko accompagner ci délégation bi euh, sëñ Moustapha sëriñ ab Lahad Ka nee na. moom moo bëggoon a teew ci bis bi waaye démb dafa yenn Mbàkke Kajoor ba mu fa jógee ki nga xam ni moo yore li ëpp ci programme meereem bi way juróom wu jigéen wàññeeku ñu koy ñaanal suñu boroom yàlla yërëm ko mu xëyoon ca démb itam daanaka man nañ bi muy jógee Mbàkke Kajoor fit naa ko fa jële ndax lenn ci njabootam amoon ay xat-xat ak ay jafe-jafe seen oto am bu mu laalanteeloon am ñett ñu am ay ay jafe-jafe loolu ci la yendu xat-xat yooyu moo ko tee ñëwal boppam waaye nee na sa diggante ak moom nee na teew ci sa bis bi teewal fi boppam ànd ak délégation bi wala bureau municipal bi nee na moo ko ci doy ndax xam na bu baax a baax li nga doon xam na itam fi nga bokk xam na itam sa doxaliin ak sa jàpp gi ngay jàpp ci doxinu réew mi ak dëkk bii di Touba gi nga xam te bi ni moom fa la nekk man naa am bis bi Cees nga koy defee waaye moom xam ne moom moo Touba mooy sa cosaan sa famille ak sa askan Touba la ñu nekk ku ni Touba ni Serigne Aliou Amar ak ña ko jiitu woon waaye ak ñi mu fi bàyyi ngay kenn ci ñooñu kon nee na bu yónnee délégation ci sa bis nee na mi ngi mel ni nga defoon ko digg Daaru Xuddoos rek mu yónnee ko fa parce que mel na ni jëmm ji ne fii jëmm ji ma fu nekk waaye li ëpp ma nga Tuubaa ca sa jàpp ko ak sa bàyyi ko xel ak sa fonk ko ak yéene koo ko yéene mu am résistance liggéey bi ko Sëriñ Tuubaa di liggéeyloo nee na xam na ko bu baax a baax nee na doo deñ mukk di ko ñaanal ci mu am ndam ci nee na loolu sang bax la rek waye nee mom yeen lay liggeel fam nek ndax seigne Touba lay liggeel ci ndigalul serignam waye ci yeen ñi nga xam ne yéen Touba dekk ci ci dekk ba ngir dundal ndigalul seigne Touba li nee na lu mu fa def yeen lako defal kon nee na ci jappale ci ay ñaan diko ci jappale ci ay xel mu rafet ku jappale ci ay xalaat nee na mënul lumay japp ko leer gogou diko sammu fo wote won ci aduna bi tam nee na bu mënee ñëw dana ñëw bu mënta ñëw dana yónni délégation ñu ñëw teewal la fa kon ndax sa wóolëre ak moom loolu rek la ci gàttal daal monsieur le maire waxoon na ni moo amoon yéene teewal boppam waaye ngant yi ma la wax nii euh, moo ci moo ci am euh, ki nga xam ni moo sës ci nga xam ni li ëpp ci administration bi moom moo ko yoral moo ko yoral euh, way juróom wu jigéen mu wàññeeku loolu ngant la yeneen congé ak ay agent municipal amoon ngant démb ci bi ñu dem Mbàkke Kajoor seen oto def soog léegi lañ leen génn hôpital Matlaboul Fawzeyni man ak sëñ Moussa mii ñu door a ñëw jaar këram door a ñëw fii waaye yéene moo doon teew fi ndax lu bari lu ngeen séq loo xam ne mënee su ko wax ci ay micro waaye xam nga ko moom xam na ko ci sëñ Tuubaa xam na xam na itam li nga ko yéene xam na fi nga ko féete itam ci liggéeyam bee muy liggéey sëñ tubaa kon nee na mi ngi lay ñaanal yàlla may la ndam ci bis bi di ñaan nga ñaanal ko itam sëñ tubaa doole ko dëgëral doole ko jàppale ci liggéey mi liggéey sëñ tubaa mu am ci ndam daraje sëñ tubaa mbokk jullit yi ñi fi teew yëpp ñu ngi leen di nuyu ku ci nekk sa sant te di leen siyaare bu baax di rafetlu tamit jataay bi jataay bi bi nga xamante ne yàlla daf ko gërëm yonent bi gërëm ko sëñ tubaa gërëm ko muy jataay bi lislaam waaye nag rawatina di jataay boo xamante ne ak bokk moo ko lal ki nga xamante ne tey moo woote bis bi muy sëriñ mustapha Amar borom Chias, moo woote surne Darmanko kon surne boobu ñëpp a ngi ci biir képp ku askanu ci naar rek yaa ngi ci biir journée bi tey ndax wootewut baayam wala maamam waaye Darmanko la woote loolu nak moy wane ne moom sëñ mi ak bokk rek moko ñor kon seigne mustapha ñi ngi lay nuyu ci turu suñu wayjur surtout nak sama wayjur wi nga xamantene moy seigne tala Amar di khalifa seigne Modou wadan Amar seigne Modou wadan Amar di doomi seigne Gumba Maram Lo la tax nak mu jox ma kaddom xam na li ma doon ci moom moo tax mu ne man naa ko waxal ci turam ci jëf ju rëy ji nga xamante ne moom nga ko defal mooy bis bii nga xamante ne jël nga ko def ko muy invité d'honneur xàmmeewuma ko ak sëñ Mama mi nga xamante ne moom mooy sama waajur ndax sëñ Gumba maramloo ak sëriñ waa daan ñëpp xamoon nañ seen diggante mu doonoon diggante bu rafet boo xamante ne ak bokk ko laloon ba mu jël doomam sëriñ Modou Wadaan tuddee ko sëñ Jiiri Wadaan sëñ Modou Wadaan moomu tey jur sëñ Taalem yi kon bu ma waxee ci kàddoom war na rakki sëñ Modou Wadaan muy saxna tagat wala magam mu tudde ko way juru sëñ Jiiri Wadaan kooku ak sëñ Modou Wadaan ñoo bokk ndey ak baay mu tuddee ko soxna tagat sugu mi nga xamante mooy way juru sëñ Jiiri kon diggante boobu diggante bu bu wér la boo xamante ne da yàgg na lool wadan ak namen di ben ñi dem lante di diklante di rafetal kon seigne mustapha li nga def na nga xamne defal nga ko askanu darman ko yeb waye askanu nak wa wadan wa ke seigne jiir waadaan yëpp defal nga len ko ndax jëm ji moy wadan defal nga ko timit wa namen yeb kon sama bàyyi bi di Amar neena mi ngi lay sant mi ngi lay gërem ci sa taxaway ci askan wi yow day ndaw nga de ma sha allah sa grafetal ñepp dañ kay waxtane ñepp ka xam amut ben bisub naaru dar manko boy dem te do fa fek Serigne mustafa ak xew bu meuna a bo ñu may dañ ka fa fek te aduna lepp lepp ak rafetal la kon Serigne mustafa ñi ngi lay sant ñi ngi lay gërem askan wepp sante nañ la gërem nañ la sa taxaway rafet na lol ben ñew nak ñi ngi ànd ak sa jarbat Serigne Bassirou Amar mi Momsana soxna umul khairi, mom sëñ Ahmada Tasrif subu di sa lepp bu am ci yow yéene lol and ak sëriñ abdoulay babu di sa xarit ñepp xam sa digënté ak mom and ak khadim Amar mi nga xamantene timit, tamit moo jiite association bi nga xamantene yi ñepp ci ngeen bokk momit it macha allah ñun ñepp ño and ak sëriñ pap joxon bu mi di sama doomu baay su ñaari baay yi bokk ben day muy sama xarit doon ku bax lol bëggu mbokk lool moom ñu fekk fi ak Samba Amar mi nga xamantene moo nekkal naari darmanko yëpp fii ci Thiès ñu ngi koy sant bu baax ak mboolem mbokki naar yi sëñ Abdoulaye Amar Mele ñoom ñëpp rek macha allah fekk na leen fi ak mboolem waa jéemul yëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen sant bu baax ci seen taxawaay bis bii nag sëñ Moustapha ñu ngi lay ñaanal ci daraja sëñ Touba nga yàgg kaa def waaw ñu yàgg la fee fekk. consultation bi gis nañu jéego yi nga xamante ni def nga ko ak hôpital bi euh, sa yi ngay wax. waaw sant rek euh, loolu d' ñu ñaanale sunu xalifa yi euh, Serigne Mountakha sunu borom yàggal ko fi tëbal ak mboolem jullit yëpp di ñaan ci réew mi jàmm di am nga mbégte bu baax nag ci taxawaay bi nga xamante ni def ngeen ko ñu ñëw fii ci consultation bi nga xam ne def naa ko mi consultation gratuite ñu ànd ci nag ak euh, docteur yi nga xamante ni ñu xarañ mën naa ci wax chef bi nga xamante ni xëy na bu ma ko jiitalee te jiital fii ci région de Thiès teg ci ki nga xamante ni mooy aussi kii fi nekk te nekk dixième euh, docteur Faye jaar ci docteur Dieng mi nga xamante ni mooy Youssou jenn mi nga xamante moo nekk fii ci zone bii di Ngent nga xam ne chaque année bu nu defee consultation day ñew taxaw ñu ci jàppale ci indi équipe am euh, te du am lenn lum ci soxla ludul jaam yi seen euh, bëgg-bëgg faju kon moom dama koy sant di sant aussi ñi nga xamni ñom la andal wa croix rouge ak euh, ñi nga xamni ñom la andal ñom ñepp di équipe bi ñu ci am mbégte nak ndax li dama ko def ngir jappalé askan bi jappalé doomi réew yi nekk fi jappalé ñi nga xamanteni xeyna xëy na amuñu yenn moyen di

kon ñu ngi sant bu baax jublu won ci dara lu dul faj aajo yi doomu aada ñepp nga ñew depuis suba ba tay ñu fi japp ci liggey bi di ñaan sa su ne ñu gën ko man ñepp fekke ko yalla bu kenn manké yalla lañ ko fekke wa at yu bëree bëri yeen a ngi koy sakku ñaan ci mom lan ngeen di bu ngeen doon sakku ñaan ci mom lan lay do xana mu ah? ñaanal ñu yokkute rek do lay bi rek do lay biti do lay poche célibataire yi sunu borom ah sunu borom daal di leen dimbali may leen ay borom kër ah ndax nah, deg na ñaan bi day dal macha allah ñaan bi day dal de wa day def effet mi ngi non célibataire yi boog yàlla nañ am ko len ki ba xamna 2023 bi jeex na sax mais 2024 macha allah 2024 rek suñu borom ubbi len andi len borom kër gu baaxa baax alors ginaaw wañ bi yéen ngi wajjal guddigi nan ngeen ko fas da ngeen di niroole waaw waaw waaw non suma si mom dañuy def ah, ni rek waye bu guddé nak ah ndaanaa ni nak dinañ genn nak dal di sajji dal di ñew nak dar suñu goor nak suñu chamiñ Moustapha Gueye. ayca ñu ngeen yeggali togg mi rek. di